ci seen page YouTube doomu Taïba wala ñu ñuy teewlu ci seen site internet tukki point org wala ngeen ñuy teewlu ba tey ci seen page Facebook seen Italia ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam waaye di ko sàkku ci yéen mbokk yi ñu ñëwaat ba tey ci seen waxtaanu koor di laaye biir ak yéen di wax ne weer wi nekk ñu ci fukki fan yu njëkk yi fukki fan yoo xame ne fukki fan yi la ba tax na doomi aadama yépp ñu ngi am yaakaar di tàllal loxo suñu borom subhaanahu wa waaye di ko toroxlul pour mu wàccee yërmande ci ñoom waaye nag buñ fàtte ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na man laa yarxamu naas laa yarxamuhullah képp koo xamee ne du yërëm doomi aadama yi kooku na xam ne yàlla du ko yërëm kon nag boo bëggee yërmande fasuñ borom subhanahu wa taala kulli xaalin faw nga yërëm mbindeefam yi xam nga buur mu ngi wax naan innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum mu ne jullit yépp ay mbokk lañu mu ne waaye nag seen mbokk googu nangeen ko rafetal nga xam ne daf ñoo obligé moom buur bi subhaanahu wa taala ngir ñu rafetal suñu diggante daf ñoo obligé pour ñu dimbalante ci suñu biir daf ñëw obligé pour ñu yéeneente jàmm daf ñëw obligé pour ñu dindi kiñaan waxante lu bon yàq doomi aadama ci suñu diggante te gis nga jullit pur un vrai musulman du yàq deru nit du tuumaal nit du wax lu bon ci nit waaye un vrai musulman tam du nekkee lu bon muy iñaan ràmbaaj yooyu yëpp un vrai da koy moytu rawatina na boo bëggee nag yërmaande suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi gis nga yàlla dafa wax nii képp koo xamee ni dafa nekk ci soxla mbokkam mu ne man yàlla ma nekk ci soxlaam yowmal xiyaam te soxlay doomi aadama yowmal xiyaam mooy nu mu muccee ba daal di dugg àjjana man kaana fi xaajati axiihi kaana allahu fi xaajatihi képp koo xamee daal nekk na ci soxlay jaam yàlla daal di nekk ci soxlaam nga bàyyi sa yitte yépp dem di dimbali ji nit ñi nga bàyyi sa yitte yépp dem di taxawu doomi aadama yi faw yàlla dalay lay remplacer yow ci yitte yi nga dog yàlla fa nga nekkoon faw dala la fay daal di remplacer soo bàyyee njaboot gi kër ga génn yàlla sàmmal na njaboot gi fa nga jëmit yàlla daal di fay def barke daal di fay def sutura mbokki waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xamee ne dafa dindil njàqare benn jullit mu ne yàlla daal di koy dindil nag ay njàqare yawmal xiyaamati te yàqare yawmal xiyaama mooy jéggi siraat peese balance yi ñëpp jaaxle naaj bi tàng yooyu ñooy njàqare yi yooyu nag yàlla daf la koy teggil yàlla dafa lay daal di suturaal ndax yonent bi salaay salaam wax na juróom-ñaar yi nga xamee ne yowmal xiyaam bu naaj bi tàngee jër bay baxal yuur yi yàlla dafa leen daal di keral bokk na ci juróom-ñaar yooyu koo xamee ne dafay saraxee te jëm yàlla ji rek daal di tax kon nag bu ñu dimbalantee ci suñu biir rawate na ci weeru koor wi ñu nekk na jàpp ne njàqare yàlla daf ñu koy teggil yowmal xiyaam man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbaati yowmal xiyaam jéggi siraat yàlla daf la koy yombal te nit buy jéggi siraatam yombee dugg ji ajanaam dafay daal di yomb ndax problème yépp siraat la ndax ku daanu rek daal di dugg ci biir safara waaye ku mucc ci siraat rek yaa nga biir ajana mbokk yi na ngeen suturalawante ndax suturaal bi ñu defante ci suñu biir loolu mooy waral suñ borom subhanahu wa taala suturaal ñu waaye mooy tax fukki fan yi nga xamee ne fukki fanu yërmaane la loolu mooy waral suñ borom subhanahu wa taala daal ñu si suturaal dolli ñu yërmaande moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man satara musliman satarahu llahu yawmal xiyaam képp koo xamee ne suturaal na ab jullit yowmal xiyaam suñu borom bi subhaanahu wa taala suturaal ko mbokk yi am na ñoo xame ne ci jamono ji lu ñu ndogoo daf leen a tër waaye waaye dimbali leen te yàlla rekk tax am na ñoo xame ne ci jamono ji génn ci kër yi wuti ji daf leen jafe waaye waay dimbali leen te yàlla rekk tax nga ñëw dimbali leen ba ñu am li nga xam ne moom la doon wuti ji ci mbedd mi te gis nga tànk doomi aadama bi mu ngi nekk ci soxlay doomi aadama yi ala kulli xaalin yàlla dafay nekk ci soxlaam ma ne tànk doomi aadama bi mu ngi nekk ci soxlaay jaam yi yàlla dafay nekk ci soxlaam yàlla nee na inna allaha fi awni l abdi maadaama la awnu wala maadaama la abdu fi awni axihi yàlla nee na du ma dañ di des ak jaam bi di ko dimbali li fekk jaam bi mu ngi dimbali ay moromam te mbokk yi nañ bàyyi xel ne mbaax du jaabante ci jumaa yi mbaax du bëri koor mbaax du jaabante màkka waaye mbaax mooy social mbaax mooy fexe ba ngay dimbali nit ñi mbaax mooy fexe ba nit ñi dimbali koo ci yow mbaax mooy bañ a jëw bañ a ràmbaaj bañ a yàq der mbaax mooy nga yërëm doomi aadama yi ndax yàlla yërëm leen laysal birr an tuwallu wujuhakum qibalal masiqi wal maghribi mbokk yi nag doomi aadama yi dañoo nekk ci perte ma ne doomi aadama yi dañoo nekk ci perte lu dul ñi nga xame ne ñoom ñoo gëm yàlla wal asri innal insaana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihaati wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bi sabri boroom xam-xam yi nee nañu aaya bi walla saar wii rekk su wàccoon ci alxuraan dafay daal di doy ndax yàlla nee na maa ngi giñ ci jamono ji nga xame ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doom dund muy jamono ji gën ci jamono yi mu ne doomi aadama yi ñu ngi ci part lu dul ñi gëm yàlla di taxawee farata yi ak naafila yi waaye di digle lu baax waaye nag di dimbalante ci seen biir di ànd ak muñ mbokk yi gis nga def lu baax day tax yërmande yàlla wàcc ci sa kaw def lu baax day tax nga jot góor yàlla yi kenn ngi nii di Ousmane ibnu Affan demul xare Badar waaye lépp lu waa Badar amoon rek daal na koy am ba am lu ko ëpp ndax waa Badar yàlla dafa wax ne dootu leen topp ci benn bàkkaar Ousmane Ibn Affan mu ngi nii dimbalante ci suñu biir ak jàppale doomi aadama yi ak yërëm nit ñi tax na mu jot waa Badar ndax bi yàlla waxee ne jaysul ushrati bi yonent bi waxee ku leen dundal ma garantil ko àjjana Ousmane daf leen a dundal waaye bi u rawma muy teen woowu ca Medina bi yonent bi sàkko ko ko gas mu garantil ko àjjana Ousmane daf ko daal di gas kon nag euh, mbokk yi nañ leen dimbalante ci suñu biir ngir yaakaar yërmande suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi weeru koor weeru yërmande la kon nag buñ yaakaaree ci suñu borom yërmande ñu nit war nañoo am yërmande ci jaamu suñu borom yi subhanahu wa taala euh, weeru koor yërmande la war nañoo am yërmande ci njaboot gi fexe jàngal leen ni ñu jullee jàngal leen ni ñuy wooree waaye fexe di contrôler li nga xam ne ñu ngi koy def fexe di profité ci jamono ji di ànd ak ñoom di naafila naafila koor xiyaamu layli ñu koy def ak ñoom ndax jamono ji jamonoy confinement la ñu bëri ci ñun ñu ngi toog ci kër yi waaye sàggan rek nekk ci ordinateur yi nekk ci whatsapp yeeg portable yi ba fàtte njaboot gi yàlla dina la ko laaj kullukum raain ku wa kullukum mas'ulun an yi kenn ku nekk ci ñun ab sàmm la te sàmm bu nekk suñu borom subhanahu wa dina ko laaj lim doom sàmm yowmal xiyaam kon mbokk yi fi may tëjee samay kàddu damay wax ni weer wi weer wi la waaye ku nekk na natt boppam ndax moom am na yërmande ci njabootam ndax yow borom kër gi am nga yërmande ci soxna si ndax yow borom kër gi am nga yërmande ci njaboot gi ndax yow boroom kër gi am nga yërmande ci dëkkandoo yi soxna si it mu eh, xisaab boppam natt boppam xool ndax am na yërmande ci borom kër gi ndax am na yërmande ci njaboot gi ak li ko wër mbokk yi loolu buñ ko defee rek suñ borom subhanahu wa taala amaan na mu wàcce yërmande ci suñu kaw yal yàlla def suñu dégg ak topp yal na yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne li mooy dëgg ñu daal di koy topp waaye mu woon ñu ay caaxaan bañ xam ne li caaxaan la ñu won ko ginnaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu